kàddu gi nag bu paasee sant soññee rek la ñi ñuy soññ nag mooy ñi ñu sañ a sonn mooy soññ mooy ñi nga xam ni dañoo nekk suñuy moroom ak suñuy rakk ak suñuy jarbaat ak ñenn ñi sa xëy suñuy doom ñoom rek la ñuy sonn ci liggéey bi gin avant ñuy soññee nag dinañ leen wax ne leen ñu ngi gërëm mag ñi nga xam ni liggéey bi ñoo ko téye woon bañ fekk ko ci ñoom jël ko ci ñoom ñen ñi suñuy maam lañ ñen ñi suñuy wajur lañ ñen ñi suñuy mag lañ ñen ñi liggéey nañ ba dem Touba ñi ci dess ñu ngi fi ñen ñi wéradi nañ ñu ngi leen di ñaanal ñu wér ñi ci dess ñu ngi fi wante jëm nañ mag yal nañ fi yag lool te and ak wér ñenen ñi nga xamni suñuy mag lañ yu sës ci ñun nga xamni ci ñom lañ jëlé liggéey bi tamit ñu ngi leen di ñaanal bu baax di leen wax lima daan faral di wax mané ñun ñi ñun am nañ leen ciant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yàmm lu tax mooy ñoom ñooñu ñu pour ñu liggéeyal Serigne Touba ndax amaana ñun bu ñu ñëwoon fekk suñuy mag nekk ci làmbu ja wala ñu nekk ci fubal ba ba taluñu kër Serigne Touba xëy na loolu rek lañuy def kon ñun bu ñu ñëwee fekk leen ci liggéeyu Serigne Touba bañ mën ko jël ci ñoom ameel nañ leen cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yàmm li ci des nag ci soññee bi mooy. wax sama mbokki taalibe yi ñi ñu sañ a soññ ne leen kër sëñ Touba gi nii li may répété toujours di ko wax mooy kër sëñ Touba buñ ko waxee ki nga xam ni daa juddoo Malika muy ñu mel ni ñun ñii ak suñuy mag ak ki nga xam ni daa tuxu si Malika biig ñoo yem ci kër gi kon bëgg naa ñëpp comprendre loolu bu ko defee loolu ab woote la pour képp kuy mbokku taalibe nga ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi te nga xam ne ñun ñi fi nekk ba mag ñi di ñu sant ak gërëm dañuy góor góorlu rek wante demewuñ ci xam-xam bu wér demewuñ ci alal aussi ju wér kon na képp koo xam ne mbokku taalibe nga nekk ci dëkk bi di dégg suñu kàddu wala suñu kàddu man laa fekk fa nga nekk ñu ngi lay woo ci liggéey bi di la wax ngeen ñëw ànd ak ñun liggéey boobu loolu ay kàddu la yoo xam ni bëgg naa ko wax te toujours maa ngi koy répété bi ci des mooy di leen wax rek fi liggéey bi toll parce que ay nit bu fekkee toujours dañuy laaj nit ñi seen alal ñu dugal ñuy profiter di sant ñi dugal seen alal nag di ñaan suñ borom gën leen ko di leen wax ne leen ñun ñi ñuy toujours ñun defuñu dara bien que heure bu travaux wala ñu lancé fi leelatul xadar bii weesu wala gàmm eh, ñi fi nekk di nous ànd ñun jaayante dinañ ko ji njëkkee ci suñu bopp waaye di leen wax ne leen lu fi mbokki taalibe yi mbokki jullit ñoo ko fi def wante du ñun kon sant gi kenn ko moom mooy seexul xadim toujours ma wax fi ni man mii sama kër gee su fekkoon su ma laajee nit ñi ñu jox ma ma defar ko dinaa leen laaj ñu jox ma ma defar ko wante bu ma doon laaj pour defar sama kër tam duñ ma jox dara kon bu dee dem dañuy laaj ngir kër sañ Touba ñu jox ñu buñ ñu koy sante rek ñun waruñoo gis suñu bopp war na ñoo xam ni ka ñuy tudd moo tax ñu jox ñu wante du suñu jëmm kon kooku moom moom sant gi kon nag li ñuy wax mbooloo mi daal mooy ne liggéey baa ngi nii ci kaw ci ñi fan yéeg wala ñu gis ko mooy àggale woon nañ raax bi dese nañu beneen euh, euh, feneen fu ñu jëm mooy carrelage bi ak balcon yi fa war a nekk ak ñaari saal yi ne ci kaw nga xam ni ni ma ko waxee woon dañ faa def saal bu mag bu mat 12 boo xam ni dañ koo defal ñiy répété xasida ak ñiy jàng alxuraan mën na nekk tam salle de réunion beneen sal bañ fa def mu mat 6 boobu kàggu lañ ko bëgg a def di fa denc xasaayit yi sëñ Tuubaa yi ak alxuraan suñu borom ji kon foofu yëpp laaj na defar boo xamante ni finition moo fa des devis bi nga xam ne devis carrelage bi nag defar nañ ko ba pare yaakaar naa ni jege na 10 millions parce que tamit bëgg nañ ko liggéey liggéey qualité devis boobu tam dinañ ko tasaare ci réseaux sociaux yi ñëpp jot ci ñu xam ni loolu tàmbali la wante devis balcon yi defaraguñ ko. devis plâtre yi war a nekk ci biir saal yooyu ak ya ñu war a àndal yëpp defaraguñ ko wante di leen wax ne leen daal foofu liggéey foofu la liggéey bi tollu képp koo xam ni liggéey bi doxin bi ñuy dox am na loo ci jàpp ni war nañ ko cee gën a jubbanti ñu ngi lay woo nga ñëw lii laay war a sóoli di leen wax ni monopoliser wuñu mbir mi mukk parce que xam nañu suñu bopp ni ñun xam-xam boobu nekku fi kon nag képp koo xam ne am na loo ñu mën a yokkal ci xam-xam am na loo ñu mën a yokkal ci expérience am na loo ñu mën a yokkal ci ci ci maanaam jëflante ak ay doomu aadama ñu ngi lay woo ci biir liggéey boobu di leen wax ni foofu la ñu toll bu ko defee képp koo xam ni am nga information yoo ci bëgg jot wala loo ci bëgg a dugal am na ñaari numéro dinañ ko tasaari ci réseau yi benn bi numéro bi Talla Diallo moo ko moom bi ci des Seexloo moo ko moom

moom lañ fa bëgg a yóbbu mu nekk côté boobu ñu décorer ko parce que classe yi fa nekk kii kii romb te comprendre du xam lan moo xew ñuy wax ñi xamul woon ni fii kër Serigne Touba la goo xam ni dafa boot école Al fii ci biir école Al Azhar ku ko wax wax Serigne Mourtala Serigne Mourtala doomi Cheikhul Khadim la moo ñëwoon fii teg fi xeer wi def fi école bi kon allah kulli alin dañuy continuer di nekk ak école bi donte fii kër Serigne Touba la waaye nag. am ñu daal yéene boo xamante ne suñu ko yàlla mayloo dinañ fexe ba école bi pousse nii ci kanam bu ko defee locaux yi nga xam ni moom la ay ci kaw loolu yëpp dañ koy transformer mu bokk ci kër Sëñ Touba parce que ñëpp xam nañ kër Sëñ Touba gi na te ndax murid yi ñu ngi yokku yàlla nañ gën a yokku waaye mu ngi commencé xat kon loolu yëpp bëgg nañ ko transformer ba jox taaru kër Sëñ Touba gi ni mu mel ci kanam mel ko ci côté bii mu mel ko côté bële loolu yëpp ñu ngi ci liggéey bi di ci nekk waaye. li nga xamni moy li gëna mag dal moy loolu ma leen wax dinañ ko gëna a ba mu gëna ba ñëpp gën ci jot kon kaddu yi gudduna wante ñu ngi koy jéggulu ñu ngi jéggulu bu baax di sant ñëpp di gëreem ñëpp di ñaan suñu borom yalla nañu defal ñu fekke ko ay ati ati at te at mu ñëw gëna dakk bi at ñu génn ñi feebar yalla na leen yalla wéral ñi ñak yalla na leen yalla may ñi am aaju yalla ko suñu borom fajj barke Seexu Xadim yàlla nañu yalla nangul suñu koor yàlla nañu yalla may ngërëmum Serigne Touba alaykum